télé bi bégal sama askan Ladoum TV c'est Ladoum TV ding ci gis sa bopp jànge falun émission chez le vétérinaire dina ànd ak yow saytu wergu yaram santé animal ngir a sama laanu mi dundee. fii ci Ladoum TV. Ladoum TV jox la kàddu. ngir nga mën a wax sa jaar jaar. dara raw. Mm-hmm. visibilité dinga ko promotion dinga ko nanga wane sa ci émission. aywa mbokk yi ci seen première édition foire sama gox bi nga xamante ni eh, ki ko initié xam ngeen ni. le grand champion Modou Diagne waaye nag doomu ndeyam xaritam bi nga xamante ne fu mu nekk ma nga fa waaye lu mu ne ma nga ca olof waxoon ni yéeg yomb na waaye nag yéeg des ca kaw moo jafe macha allah depuis ci maxu sëy ngeen xam ni euh, bergerie Ladoum SN nekk ci suprématie bu doy waar wax dëgg yàlla ba mu génnee ay mensuration monde de l'élevage yëpp dafa yëngu woon un homme incontournable il est devenu un faiseur de champion suñu xarit suñu frère moo Dramé ñu ngi lay nuyu di la waaw salaamaaleykum wa rahmatullah donc euh, Kandji sama doom baay maa ngi lay nuyu bu baax di la delloo ziar di nuyu aussi téléspectateur Ladoum TV bi yëpp di rafetlu seen liggéey nag parce que maa ngi leen di suivre bu baax a baax a baax a baax merci beaucoup. aywa duñ ne il a fait il a encore fait macha allah ñëwati rafle li nga xamante ni moom mooy trophée yi macha allah ci catégorie mâle. adulte ak femelle adulte muy li gën a jafe concours képp ku ci dugg la boo fa duggee mooy dégg nga daali mu ñëw nag ci euh, première édition bi l'histoire retiendra que ni Ladoum SN moom moo yóbbu ñaari trophée yooyu mais Modou wax naa la ko sànq boo jekkoo del baale non dama baal gars yi gis nga ñetti xar laa indi catégorie bu nekk benn laa ci indi espoir bi sax kër gi laa ko bàyyi donc su ma ko su ma ko sax si la affaire bi di gën a complet waaw waaw waaw dara quoi aywa léegi nag euh, vraiment nga indul ñu El mu nekk un mal extraordinaire exceptionnel Sénégal yëpp di ko bàyyi xel macha allah est-ce que mën nga ñoo fàttali fu mu bokk. waaw El nag mâle bu ñuy wax Maxu mooy baayam euh, xar bu ñuy wax Sinjili moom mooy yaayam mu nekk xar boo xam ne dafa bokk ak Maxu Sey muy yaayam am côté boo xam ne dañu bokk ci ak Maxu Sey loolu tax croisement El Bachir aussi nekk croisement bu bu am solo. parce que Elbasi dafa laal ci Koromak laal aussi ci Saalum Saalum côté yaay ji aussi laal ci Maysa Wade Ramses booy lebu Aysa Kumba Gawla Kumba Gawla bu ñu waxee dañuy delluwaat ci booy séeréer te boo ñëwee ci Makusey aussi dañuy wax première dame première dame doom booy séeréer donc foofu tamit da ngay gis ne booy séeréer bi dafa del day dellusiwaat nga ñëw euh, aussi ci Aysa mi nga xam ne moom moo jur magistrat magistrat ñëw jur Makusey Aysa moom aussi moo juraat Kumba Gawla moom yaay ji dafa bokk ak maxu bu baax a baax a baax mu nekk xaar yoo xam ne aussi dañ leen takk ci mensuration moo tax aussi biñ gisee yaayu El Basir mu nekk mbote nekkoon ci benn euh, euh, ñi fekkoon ko kër lig ni ko lay euh, mu nekkoon ay mbote yu bari moom ñi gis ko tànn ko ci parce que xam nañ pedigree bi mu bokk lépp loolu waraloon nañu tànn ko bi mu ñëwee tamit vraiment bi ñu ko croisé def na exploit bu extraordinaire parce que tey jii boo xoolee même femelle bii di Soda Mamba sax waaw moom ak El ñoo bokk ndey baay donc ñu ñëw mag ak la ñu ñëw kii jël première euh, femelle adulte kii ñëw jël première mâle espoir. kon loolu mooy boo présenté maal bi rek macha allah di El Bachir mooy présenté nga Soda Mamba. waaw boo présenté mâle bi rek vraiment présenté nga El Bachir vraiment aussi euh, mu nekk loo xam ne baayam foire bi mu njëkk a génn Kër Massar la woon espace bii la woon ñëw am ans. ñi natt ko mu battre record LCS ci deux ans mu defoon 164.5 defoon hauteur 113 defoon TP 132 defoon poids 141 kilos vraiment El Basir tamit ñëwaat am deux ans bi baay ji amoon macha allah moom it mu ñëw ñëw ñëw bu naturel nag parce que sax du xar boo xam dañ ko préparé ci deux ans aussi mu def 171.5 def cent point 118.5 nga gis ne ci masération raw na bàyyi ji vraiment mu nekk loo xam ne aussi. sagu élevage la mbégte éleveurs yëpp la di ko ñaanal rek bu amee trois ans ñi génneewaat ko évaluer waat ko xool fan la toll parce que dama ne woon xar mi tant que amul trois ans du ko nat mais xam nga rek jaañ sama xarit la organiser na bëgg naa foire bi neex aussi looloo waral aussi ñu andi ko waaw. Mmh. aywa Soda Mama toll ci ban âge moom fi mu toll looloo ñu présenté ndeyam ak baayam ndax ku tudd El Bachir rek moom ban âge la. waaw xar bi di Soda Mama mu ngi ci trois ans et demi. moom aussi nekk na xar boo xam ne vraiment macha allah moom it femelle bu tiitere la parce que euh, dem na sept jël fa deuxième agnel dem faaru ànd bokk sàmm jël fa premier espoir après ñëw Thiès jël fa deuxième femelle adulte ñëw foiru banlieue bi bi passé jël fa première femelle adulte tey mu ñëwaat Kër Massar ci sama gox jëlaat fi première muy cinq trophées donc vraiment daal euh, mën naa wax ne daal macha allah. maxu moom def na li ko waroon ko war hmm. hmm. waaye ñu ànd ak benn tëng nag tëng boo xamante ne bi mu ñëwee moom it dafa yëngal bu baax a baax a baax muy première édition bi macha allah boo ko xoolee doo ko teg tëng et pourtant jàpp naa ni ah, ci li gars yi wax neuf mois dong la waa waaw effectivement tëng bi xar bu ñuy wax yaajee moo ko jur ak El Basir yaajee moom daanaka xar la boo xam ne kenn doonu ko présenté éleveurs yi xam nañ ko moom mooy euh, moom mooy yaayu docteur Gabi docteur Gabi moo jur Marianne Bathily mu nekk femelle boo xam ne ñëwoon na ci foiru seb bi passé ñu doon ko natt te jot te yegg mais hauteur bi rek defoon na 108 trois fois donc bu yàlla defoon mu yegg moom record hauteur actuellement konoon moom moo ko yor mais xëy na noonu la ko suñu borom donc mu nekk tëng boo xam ne nag éleveur yëpp am ci moom yaakaar ñëpp am ci moom yaakaar donc dañ koy ñaanal rek parce que gëm naa ne moom it li fi ay parents am def ragal naa ne sax mën naa def lu raw lool. Hmm. waaye nag bi ma ko duggee mu yóbbu ko ci beneen dimension wax na ko boobaak léegi sa waay lan mooy secret non secret bi mooy nekk ci liggéey bi rek te loo def bu passé nga fàtte ko lancé waat sa bopp yeneen defi parce que fan yëpp maa ngi koy wax nee naa jàpp naa ne sama càmm mu ngi doog a tàmbali te loolu laa gëm. malgré li ma def lépp jàpp naa ne càmm gaa ngi doog a tàmbali parce que léegi nag. bëgg naa liggéey yeneen design yu xar yoo xam ne tàmmuñ ko di ko gis ci euh, axlu élevage muy laadum fexe naa aussi ba samay xar daanaka dañuy juraat seen bopp parce que ku bopp box bi da ngay xam ne xar yi ñu nañu waaw léegi nag li des mooy fexe liggéey maal yoo xam ne bergerie bu ñu dugg ak famille yu ñu fa mën a fekk dañ koy améliorer ci lu gaaw a gaaw a gaaw a gaaw gaaw waaw fan yi tamit def nañ ay croisement yoo xam ne am na lu ñu juddul xam ne am nañ ci yaakaar gëm nañ ne ak ñooñu bu ñu màggee ragal naa ne dinañ indi yeneen xeetu xar yoo xam ne bu ñëwee xar yu complet lay doon muy ci esthétique bu jéggi dayoo boo xam ne day jaaxal nit ñi mais aussi muy ay macération yoo xam ne nii yu mat sëkk lay doon mu nekk xar boo xam ne du manqué dara incha allah rabbi hmm. kon euh, mbokk éleveurs yi ñoo ko déggandoo moo Dramé ne na Modou daal fas yéene yëg kaw éleveurs yi te du leen wàcc <laughs> li mu fi wax weesul loolu des fois nit daf may woo ñaanama ba sama yaram day daw te pourtant dama koy jox xar jaay ko xaalis bu bari mais day fàtte xaalis bi amu Sakho mi nga wax nii démb woon na ma félicité ma xamal ma nag sama xol sedd na parce que ne woon nga ma bis boo yoree champion di nga xam ne yor nga champion te xam naa ne jox nga ma champion parce que xar bi bi mu fi ñëwee avant muy avant ma ciy lu sax am na ñu ma commencé woo Dakar di ma ñaan tëb am ñoo xam ne ñu ngi bëgg baat rocc waat xar bi ci man mais jàppal ne xar mi génne El Basir sa kër moo gën a yomb nga génnee ko sama kër mais xam nga loolu mbégte la bu yàggul jaay naa fi benn booy xar 5 millions jaay na ko 30 millions plus ci ñu dugal ko ci benn maal man sax jaayee gu ma xar loolu hmm? jaay naa nit xar tamit prix taaw mu jaayee ko 10 millions xam nga loolu mënul weesu mënul weesu mbégte léegi nag loolu man dama ko xam looloo waral aussi demande bi bari na trop demande bu forte la am plus de presque ëpp na cinq ans demande bi bi am mënuma ko offrir mais aussi dama xam ne mooy comme li nga wax sànq. ñu bëri jàpp nañ ne xaru Dramé bu ñu ko xasee ba am moom lu la naqari woon seen élevage dina leen neex looloo tax aussi damay sévère ci sélection bi may def par rapport ak femelle yi ma di ko croiser ak mâle yi ma mu wóor ma ne lépp lu fa génn boo ko joxee nit yaakaaram du tas parce que aussi éleveurs yi il faut ñu bàyyi xel lool des fois da ngay toll foo xam ne ci élevage demande bi dina bëri boo bàyyiwul sa xel trop rek commerce nga koy def da ngay dem jënd ay femelle rek détecte mâle bi muy tëb rek ngay jaay di nga nit ki xar ndax sa tur mais peut-être la muy xaal ci xar mi su boobaa mën na bañ am comprendre nga loolu tax aussi dama yor famille yoo xam ne ay famille ndaanaan lañ yem ci ñoom même bu fekkee production bi du bari tamit damay yem ci loolu mu wóor ma ne liñ luñ produire ak loo ko mën da jaayee nit moom bu duggee këram rek ba commencé produire mu fàtte mu fàtte prix parce que nit boo ko jaayee xar 800000 amu ci satisfaction naqar gam cay am du xool ne 800000 nga ko jaay mais naqar gu méttee métti la si am te day indi jafe-jafe seen diggante mais boo ko jaayoon xar 20 millions mu dugal ko këram am satisfaction prix ba da koy fàtte. mbokk yi xam ngeen ni demande bi forte na euh, li fi nekk sax mënuñu koo satisfaire waaye nag du dara tey euh, bor xam-xam la ci li nga xamante ne tey moom la nekk muy élevage. léegi nag doomu baay li ñuy def mooy da ngay fàttali gars yi adresse bi ak numéro de téléphone bi. waaw adresse bi moom mooy Parcelles Assainies unité 20 école Dior bergerie bi mooy Ladoum SN numéro téléphone bi mooy 77 501 50 74 compte TikTok bi aussi Ladoum SN la. donc mu ngi noonu Facebook bi aussi Ladoum SN la voilà Ladoum SN nag mooy Ladoum Sénégal <laughs> voilà. nekk fierté bu mag nag ci ñun ñi dalal. dëgg la jërëjëf merci beaucoup. wax na jaajëf.